léegi si say biir wax bi ñuy évoqué euh, sujet wu jinne yeeg rab yeeg yooyu dafa am benn affaire boo boo boo boo souligné woon mooy euh, nit ku nit kuy foye boppam euh, olof di ko wax mballu français di ko wax masturbation donc yooyu aussi dafa am ay pexe yoo xamante ni nii mën nga ko ci wala da ngaa xam ne lii sabab bi. seetaane moo koy joxe moom tamit noonu la naqaree faj. Hmm. waaw faj naa ko fi yàggul dara fajaat ko fi. boobu boo fi gën a naqaree faj boobu boo gisee ñenn ñi di leen mu leen dal duñ xam dañ leen koy fajee maa man secret yooyu man yëpp si yëpp secret suñu borom woon na ma ko ndax man yàlla dafa ma dajaleel secret yëpp billaahi wallaahi wa taala ajuma ji nii man sunu bon noonu la ma dajale ay secret dafa ma woon ay secret yi lépp benn bu si nekk dama ko faj ba pare doo nga xam fa la ñuy génne musuma ko wan a xam waaye damaa jàpp jinne <coughs> hmm. loolu la jinne bi fa ngay fowee jinne bi foofu la foofu lay génnee kooku dama koy wax ñi muy dal foofu ngay hmm. fowee hmm. foofu ngay fowee ndox moo dafa génnee hmm. foofu la jinne bi di génnee <laughs> affaire bu garaaw la nag <laughs> ndax jinne bi fii lay toog sa naq yi te loolu nag dafa garaaw des fois mën nañu te lool boo ko commencé def nii mën na doon mën na doon ay 10 <coughs> jinne mën na doon ay 20 jinne mun na doon ñaari jinne mun na doon benn jinne ça dépend man ki ma ko traiteel fi ku ma ko doon traiteel fii nii génn naa si moom plus de xaw ma six xaw ma sept daal si diggante yooyu noonu sans mm-hmm. dépend mais jënd bi foofu lay génne damaa bëgg ñu muy dal nan nan yeew foofu la jënd bi di génne boo gisee ñu koy faj mun ñu koo faj mun naqaree faj parce que foofu la jënd bi génnee moo tax fa ndox mi di génnee foofu la jënd bi di génne waaye man boo ñëwee fii nii man mm-hmm. xam naa ne ma leen di génnee fii suma biir kër li muy naqare naqaree faj yëpp ku ci am boo ñëwee fi ma fajal la si kàttanu sunu borom incha allah bi si kàttanu sunu borom. si kàttanu sunu borom boo ñëw fii ma fajal la ko. man feebar yëpp ma lay won la lépp man lépp si yàlla laa ko si si yàlla laa ko wékk. yàlla mooy faj te yàlla jox na ma xam-xam yooyu yëpp dénk ma ko. moo tax bu ma demee ba am fit di jël micro di jël di wax. xam xam naa li ma yàlla teg sama loxo bii xam naa ko ñi ma xam dëgg ñi ma faj dëgg ñu ñëw si biir ñu ñëw si biir kër gi ñoom xam nan maay kan xam nan li yàlla teg sama loxo bii mu siy dimbali doomu aadama yi. kon kon suñu déggee li nga tënk yëpp li nga fi wax lu jëm ci wàllu cancer jëm ci wàllu ngelaw seytaane bi jëm ci hémorroïde bi ba ci mball bi ñu mujjee wax yëpp kon da nga jàpp ne mbiru seytaane la rek. lépp dama ko faj fii nii seytaane loolu ay ginne ñoo la koy defal loolu na xam fa la mballu boobu noonu nag la plupart xam nga ñoo koy xam nga ñoo koy xam ñun ñoo koy am. ñu téewul seen bopp. ñu taxawaalu. waaw parce que des fois di nga jékki-jékki gis jigéen te fekk du nit jinne la. mu charme la romb la sànni greffage bi xaw ma si karaw gi sànni ko teg ko fële romb la nga defa ni yaa si nekk nga jël ko yóbbu ko sa kër wala nga an yóbbu ak moom boo demee virus bi foofu la lay duggee ki ma fi jàppoon fii nii jënd ma fi jàppoon moom moo ma ko wax dama ko laaj noo def ba dugg ko mu ne ma virus la man maa ko sol virus bi parce que moo romb woo ma ma sëyeeg moom ma sànni ko virus bi boo xasee ba sëyeeg moom moom day dëkk si yow. dootul génne si heure bu ko soxlaa xoolal mën na laa yóbbu fu fu ko neex foloo la def loolu lim lay def boo paree boo paree da ngay réccu moo tax da moo tax téye sa bopp tamit baax na si tamit quoi. Euh, feneen fi ñuy fi ñuy jeexale mooy ci wàllu euh, loo xam ne war nga koo mën a baaxee nit ñi muy cent 313 xaw ma lan la euh, mu bëggoon rek nga wax ñu ci sa xam-xam. waaw chiffre 313 nag chiffre boobu nag moom. <clears throat> mën naa ne boroom xam-xam yëpp xam nañ ko wala ku amul xam-xam sax am na ñoo xam ne sax dégg nañ ko wala xam nañ ko chiffre trois chiffre mën naa ne chiffre 313 ñu ko xamul bariwul mën naa ne ñëpp xam nañ ko waaye chiffre la boo xam ne ni maanaam dafa am barke chiffre boobu noonu dama see bëgg a def social dimbali si doomu aadama yi chiffre 313 boobu noonu social laa si bëgg a def defal si nit ñi consultation gratis chiffre 313 boobu noonu dama ko bëgg a par 10 bu ma ko ji bu ma ko diviser par 10 mu joxaat ma 31000 virgul 3 comme ba léegi boo effacé virgule bi trois 313 dafay nekkaat chaque jour damay jël ay 10 personnes dimbali leen consulter consulter leen te yàlla rek tax faj leen ba ñu wér ak bépp faj ak bépp jafe-jafe boo mënta am. du mën a ñàkk nag cant gi mooy 31 mille 300 yooyu noonu moom mooy cant gi loolu rek mooy cant gi mooy 31 mille 300 boobu noonu ngay di ngay dégg boo ko diviser par 10 personnes 313 nga diviser par 10 personnes mu jox la 31 mille 300 31 mille virgule 3 boo effacé virgule bi ba léegi chiffre 313 dafay nekkaat maanaam boo ko boo boo ko calculer ci addiye day doon 31 300 31 300 yooyu mooy moo tax faj bi jàpp pour li ma lay defal faj bu ma lay faj sa jàngoro bu la fiy indi loolu moo tax faj bi jàpp ndax faj faj bu amul bu amul tegoo loxo du jàpp. laaj laaju ma kenn 300000 ma kenn 400000 laaj ndax dëkk bi dafa metti des fois nit dafa may woo sori. sama première émission ma fi def nit daf may woo sori na man de sëñ bi bëgg naa faju te jàngoro yi may wax yëpp moom moom daf maa dal te maanaam bëgg naa faju waaye aw ma xaalis bu ma fajoo billaahi wallaahi wa taalaahi boroom kër laa borom njaboot laa dëkk bi dafa métti aw ma xaalis bu ma fajoo te fii koo fi fëgg ma médecine traditionnelle ba fëgg këram pour bëgg a faju daf lay laaj xaalis loolu moo tax ma bëgg a def chiffre 313 boobu dimbali si doomu aadama yi cant googu ma leen laaj loolu mooy tax faj bi jàpp day am barke def ko addi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa salaam consultation boo ñëwee dama la defal consultation gratis bu la neexee wax la lu nekk sa yaram ba pare boo demee ba jekk bu la neexee ma bind sa tur 31300 boobu noonu moom moo doon cant gi mooy tax pour faj bi ba mën a jàpp 31300 xam nga bariwul bu fekkee dama la war bu fekkee dama laa war a traité at dinaa la traité at si kàttanu suñu borom at sa du ko at sama samay traitement sa sa yàggu at sa du ko dem man sama traitement yu bëri ñenn ñi ay ñaari semaine la ñii ay benn weer comprendre bu fekkee traitement la ma traité la ba nga ni cecc bu dee nag kuy daanu rab sa doom day daanu yore ay jinne bu ñëw ma dindi lépp ba mu set si 31300 comprendre yaa xam sa doom bu amoon fi mu toll nii cinquante jinne bu ñëwee si kàttanu suñu borom ma dindi ñëpp tuub la leen dugal leen si diine islam téye leen fii suma biir kër nga am jàmm yow it nga am nga am jàmm sa yaay am jàmm ñëpp am jàmm moo indi chiffre 313 boobu noonu. bëgg naa tamit def benn asos boo xam tamit asos boobu tamit moo ko defee tamit dama siy dimbali tamit doomu aadama yi tamit. asos ba bu ma demee ba taxawal taxawal dama ko bëgg a taxawal tamit moo ko taxawalee tamit si biir chiffre 313 yooyu noonu foog mu mat ñi ma war a dimbale ku si bëgg tamit mën naa laa garantir tamit benn affaire tamit ma la fajee ba ngay wér ba pare tamit hmm? boo amee ay njaboot si kàttanu sunu borom si biir association bi nii chaque weer ñaar téeméer ngay natt 1000 francs 1000 francs du dara hmm? ñaar téeméer yooyu yow la ak sa njaboot ñëpp lépp lu dal sa wàllum njaboot si wàllum seytaane lépp lu leen dal si wàllum seytaane loo xam dañ koo war faj yaa may dégg boo ñëwee fii ma dindil la ko yow ba si biir njaboot ñëpp si chaque chaque weer ñaar téeméer foog ma dimbali doomu aadama parce que feebar yu bari <clears throat> gars yi ñoo la koy teg nga dem hôpital di fay ay xaalis bu dul jeex di opéré léegi ma noonu laa ko bëgg a doxalee. association boobu noonu moo ko taxawee Daaru Rahman lay tudd Daaru Rahman la moom laay tuddee association bi Daaru Rahman man moom mooy sama turu euh, keppaareel bi. daa waaw Daaru Rahman. association boo si bokkee chaque weer ñaar téeméer nga nett même bu ma la fajee siiwur ba bu ma la fajee ba pare bu la neexee nga bokk bu la neexee nga dem waaw man xam ma dafa gën a wóor nga ñàkk maa bañ a xam ndax am na ñoo xam dañ maa xam rek. yaa may dégg kenn ñemewu leen billaahi wallaahi wa taalaahi